di wax ne tamit li tax ñu def dialogue bi bokk na ci dañu sukkandiku ci li nga xam ne moo am Sénégal parce que ñun ONG boo xamante ne la amuñu suñu programme bopp suñu programme mooy jàppale pays yi nga xam ne foofu lañu nekk. donc ñu gis ne ah ndaw yi ak jeunes yi war ndaw yi ak euh, mag ñi war nañu waxtaan waxtaan bi ci santé de la reproduction ñëpp xam nañ ne santé. boo leen xoolee ni ko OMS définir mooy un ensemble de bien-être complet mooy ki nga xam ne ci wàllu xelam ci wàllu jëmmam ci wàllu koom-koomam lépp daf ciy am wér parce que li ñuy wax balaa nga naan naam ne balaa nga naan ne fa nag pour nga nekk fa il faut nga am xel mu set il faut nga am xalaat il faut nga nekk koo xamante ne environnement bi nga nekk da ngay waxtaan ak ñëpp da ngay dialogue ak ñëpp ñu ne kon nag xale yi ak mag ñi dañoo war a toog ñu waxtaan parce que ñun bëgguñu Euh, ñu nekk ci conflit de génération mais dialogue intergénérationnel nga xam ne mag ñi xale yi génération bu nekk dañuy toog sottante xalaat mën a dem ci loo xamante ne dafay ñoŋal seen dëkk mën a dem ci loo xamante ne xale yi bu ñu ci jógee dinañ ci jëlee xalaat yoo xamante ne dinañ ko mën a doxal ba fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa comme mag ñi nga xam ne ñoo loon yoon bi